maanaam danañ ci tudd rek ki nga xam ne ñu tuddee di tuddee mu jàllale leen yëpp di ndax dafa am ab relation bu seen ko nag waa moom ndax ba muy nekk Mbàkke Kajoor ci di gëstu xam-xam daane su xëyee ñëw yenn doomam booba téere def benn yéen bu nekk ci pénc yi di ko kuy sàkk ci xam-xamu saahir wala mu baatin boo ñëwee foofu nañ lañ yebal soo gëstoo la ngay gëstu tam su la soobee nga wut tam kay yaxal ca la nga ittewoo daana faral di yendu si bu masaan yendu bu jullee takkusaan lay doog a yeewi bu ëllëgee mu ñëw fa nga xam ne fa la daan toog sax di jàng jën wañ ko sampaloon mu ci daan wéeru ba tey jën boobu nga woon ba ñuy tabax jàkka ji ca mihraab ba lañ ko def soo fa demee gis yàgg naa ñu doon ba foofa la xamanteeg mën Muxtaar ma ci jën mu ànd ak moom ci li muy liggéey bi nga xamee am na téere boo xam ne waa moom dañ koo amoon muy maalimul tansiir ki ko def di am baxawiyu sëñ bi yabal mën waxtaan ne ko damaa bëgg nga dem sa mbokk ya ne leen téere boobu yi laa bëgg ñu jox ma booba ma may seen ko ku daaru moo doon sëñ la moom mu daal wax man ñi ne téere bi de ko joxee ko te man biraa moom na ko moom ma may soxna mën na ko moom ba ñëw ci man ma nangu téere bi loo ma di tase waaye mën moxtaan nag xam bu xam Sëriñ Tuubaa dafa bëggam mu dong ci ne du dellu mukk ci dugg ci téere bi mujj mu tàmbali def grève de la faim nu nguur la nekk di tëdd ci naaj bi dañ ko yërëmee nag ne buñ ko seetaanee ba suñu doom ci faatu kat danañ am yaraanga kon nañ ko jox téere bi wér ko Serigne Touba bañ ko joxee téere bi ba ko joxee Serigne Touba Serigne Touba dafa ne sa mbokk yi de buñ xamoon li ma leen fàggu ci téere bi kon keroog bañ la ko joxee dañuy takk néegu ñax ay bokkal yan nga nekk ron bi ñuy dox ba indi ma ko njaari ñëw andi si nuyoo ak ziyaara mboolem usra tafsir ma ba jaxu soo maam Mamour Diogou nee na ma tay li waron ci ñun wa keur tafsir ba joxu dañuy laxas dem taxani ñew xamb mati dalal gani, ndax ni tafsir Maba mel ak serignam serign longor bes bi neena besu tafsir tafsir Maba joxu la ndax fa tabarakallahu digeunte tafsir Maba joxu ak serignam exemple la bu rëy ci taalibe bu am ngërëmal sëriñam yaakaar naa ni bu njëkk taalibe bu sëriñam demee ba naw àlluwaam daf koy teral daf koy dekoore waaye sunu maam sëriñ Longoor li mu jëflanteeg tafsir Maba Jaxu du diggante taalibe ak sëriñ kese boo demee ba sa sëriñ wàccee la gërëm la yëkkati njabootam jox la boole laak njabootam nga ànd ak moom tuddee la doomam loolu du diggante taalibe ak sëriñ romb na foofu kenn mënul tudd longoor tey te tuddunu tafsir ma ba jaxu kenn mënul tudd tafsir ma ba jaxu te tuddoo longoor donc bés bi sama maam Mamour joogu mii toog tey moo waroon toog fii ndax lii ñuy def muy muraajaa ci wàllu taarixu histoire moom loolu mooy spécialité am ci loolu lay yëngatu li ñu fi war a wax yépp baaxi si li ñu fi wax yépp mënoon na toog fii wax ko tey ci fa tabaarakallaahu li nga xamante ne mag ñi séqoon nañ ko mu rafet boole nit boole nit boole ci liggéey bu tedd yow ñu Touba tax na njub yomb tax na lislaam neex tax na xamul lu may lislaam xamul lu may ko lu baax xamul lu may jéem a jub loolu xam na ne sunu maam yi mel ni bokk suñu borom nga xam ne musal ko kooku may ko suñu borom la bindee boole na suñu baax suñu nga xam suñu baax ne ko ci yàlla na yow xam ne moom ndax man suma su ma yàlla bindoo te deful ci man li def ci man ni ñu mun ko wax gaay damay jaamu yàlla di ñàkk léegi sëñ sëñ Mor Mbaye Longhor maa ngi lay gërëm di sant ci invitation bi nga ñu invité Touba Daaru Khoudoss

ñu bañ ci sànni kàddu tuuti pour ngeen xam ne loolu moo war suñu duggante ak yéen. dama ne suma maam ba Jaxu balaa muy ñëw Longoor baayam moo ko doon jàngal ci dëkk bu ñuy wax tawakaltu alalaay ñu di ko abrégé tuddee ko tawa mu dend ak kër seet jaxu bi mu nekkee xaleel dafa aboon gis-gis boo xam ne daf doon tiital mag ñi parce que temps boobu mag ñi buuri soose ba fa newoon ñu tuddee ko jéere ba maroon dafa noonu bu fa kenn julli sëriñ sa ko waroon yëpp warewuñ ko dara lu ma di ko bindal ay téere di ko bindal ay saafara di ko bindal ay leet waaye ku ci bugg julli da ngay dugg si dugg dugg lu sa nekk wala nga toog bu guddi nga résumé yëpp jëndul ma mooy Mor nag ne bàyyam waaye bàyyi lii lu tax ngeen nangu ko mu ne ko doom bul ma indil coow li nga judd fekk ko fa te ñun mënuñ ci dara booyee boo nga xam ne lii bu ko sax yëkkati bi mu demee ba nga xam ne mu ngi xaw a dëgër tuuti mu daw làq si ko longoor waaye tëbu rek ne fan laa ko jëmee fekkoon na njóogu am parte bàyyam xamante ak waa longoor parce que du yóbbu sa doom mukk foo xamul lam doon wut ci longoor am na ko parce que bi ma ba ñëwee dañ ko def taalibe supérieur taalibe supérieur mooy taalibe boo xam ne bu guddee nga nekk sëriñ di waxtaan ak sëriñ bi bu bëccëgee nga am ak taalibe liggéey mu dem ba xaritoo sëriñam ba sëriñ bi may ko jabar tuddee ko doom wax dëgg yàlla doom yooyu nekk fii nekk euh, ba Banjul ñu kontaan ci loolu ma bi nga xamee ne loolu gis na ko foofu mu naqari ko bi mu paree ci yéen dafa dem Jolof ubbi fa daara day jàngale parce que fa la yaayam dëkk fa la yaayam dëkk fa la jabaram it dëkk ah mu ne kon naa dem fi ndax am jàmm xalaatu mukk dellu si Saloum bi bu jógee balaa muy ñëw Longoor bind na bind na Kamir kaamil baa ngi fële kër say joxul boo ñëwee moom la ko. maa la ko wax. yàlla dafay jox nit intuition. nga xam yu bëri. moom mosul ut ganaar. boo demee ñoro man awma fu ma tëdd. man mi sëtëb asuma keneen. ñun moom lu mu am jox na ko nit ñi. lislaam moo ko ñoroon boo ne ak asadoon laa ilaa mu xam ci saasi. boo jógee loo ko ñaan mu jox la ko. kon kooku dundul dund bu muy yàgg boo xam ne mais ba loolu ba mu koy def. dafa am leneen loo xam ne mu ngi nekkoon à côté. muy expansion de l'impérialisme colonial ñuy japp jami de di jaayi gore loolu naqari ko muy xeex ak tubaab yi ci côté bobu kon ma ba mission am ak ñi ko waroon doxal nako ci mission bi dafa dafa séddale nit ñi ñetti xaaj dafa ni xaaj bi mm-hmm. nañ nek ci baatin bi kurus gi mm-hmm. nañ jàpp ci kurus gi parce que jihaad jihaad boo koy def kurus daf ci solo. mu jël maamu ndëri bi ñu ma tuddee. jël maam Mor Anta Sali. jël euh, Ablaye Niass. jël Lam Tooro Guédé. duñ ko tudd. jël keneen jël keneen jël Fodé Kaba Doumbouya. ah ñoom Matar Kala Dramé. Goumba Gueye Sandial. waaw Katim Thierno Touré. ñoo ñëpp mu jël leen ne leen yéen bàyyi na yore baat yi. gi ñi ci des di ànd ak moom. di xeex ñi ci des nekkee wuñ fi lu may garder jigéen ñi. ak garder euh, màggat ñi ak xale yi mu defar benn tata bu mag boo xam ne ku jàq foofu ngay daw nëbbu si bu fekkee ba mu dem na defi expédition ci temps boobu la Lat Joor ñëw bi Lat Joor ñëwee jàmm rek amoon seen diggante li kii wax dëgg la ngoon Latiir la mu def ak moom dëgg la waaye bi Lat Joor a ñëw dafa ànd ak tantam rakki ngoone laata muy deba sukka deba sukka dem nañ ba may koy Maba Jaxu sax <laughs> mu ne Alburi Njaay mm-hmm. ni yaayam mm-hmm. doo dëkk ak Lat Joor parce que ñaari kuy dina naan ci benn mbarka mu wutal ko benn dëkk bu ñu tuddee dàgg Alburi boo demee ñoor ba tey dàgg Alburi mu nga fa mm-hmm. kon histoire bi ñoo ko bokk. ñoo ko bokk ñaata guerre la Lat Joor def ak ba Jaxu. macha allah ku tudd Lat Joor te tuddoo Maba Jaxu doo dëgg. tudd Maba Jaxu te tudd Lat Joor du dëgg. macha kon euh, Mbaye. Euh, dugal leen lii ci seen. Euh, réseau bi ñu ba beneen yoon. donc loolu dañ ci kontaan lool ah tas Maba Jaxu nag li ko taxoon a jog rek baatu ashhadu an laa ilaaha la moo ko taxoon a jog moo taxoon sëriñ yëpp àndoon moom ñëw. ndaxte réew mi dafa tolloo foo xam ne ceddo yi ak tubaab yi dañoo lënkoo woon di xeex jullit yi mu naxat leen mu am benn bés ci dëkk bi ñu wax naan njëg daan la ci kaw kati Kaffrine ba si ñi di julli juma buur Saalum ku ma ndaa moom Mbodj fekk fa sëriñ sa fa ñuy juma boobu Ousmane sëriñ bi Ousmane Soxna newoon lakk juma ji seen kaw rey fa juróom fukki kenn ku ne naq si sëriñ Saalum si yëpp ñu dem jaala ji dem dem dem wanaa daje fa ñu waxtaan ki la bu daadu see bàyyi Birane Cissé na nga jiite tasuma jaxu ñaan kiw la wàllu la borom fit la te mu ngi ci soxla ci mën empire keneen ku ci jiite jiyaat ji ba la tubaab bi toppee dana tas askan loolu tax ñu tànn ko keroog wanaa mu jiite nit ñi comme ni nga ko waxee rek ñaan na di préparer di sikar lépp di ko def ah Lat Joor nag bi mu amee problème biir Kajoor ci la jëm départ tak du ci si asile sil la njëkk jaar bi mi départ mu ngi and ak juroom ñaari lien yi gën a muy Demba War Sall Alburi Sénégal Kumba Jànk bu ñame nge Ibra Fatim sar gor gu binama bo jor bu def fu béy ak Maxet Gueye juroom ñaari lien naa yo ñu jàmbur jor ci kadjor and ak mom ñew ci sin Buur sin ne ko la topp wu mako muy tubab bi mu and ak ñew salum ci lako gor gu binama jox nako li tëj jamono ca Kajoor te Buur Siin te Buur Saalum sëriñ bi ci rip bi ci badd bi ñu ko ma ba jox ko jéy moom la moo la mën a mu li lee topp moo ko moo ko loo ko tax mu ñëw ñooro nangu ànd ak moom lu xeex xeex bu metti bi tubaab bi mer li la joor ñëw ñooro ne nañ ko laa xam ba jox ne ko génnee ma ñu ko ma ñu ko amoon lañ am coloré boo ma ba fàttali na ko yaay la joor defaloon ca Kajoor moo tax mu nangu ko accueillir ko ànd ak moom

ndari kanni set kanni lain manam ñang ngeñ xari manam ñang mbakki mi xana moy mamadou dabax man mu foon mo ci di mel ñass di bayala jab lañ mu foon nanam lepp ñu foon nam ci nam dram ñepp nga nam job taxaw wara jamal tubab bi waye ku yalla andal ngam dam te bobu tubab bi inventé nañ kanu ya xana mëna ray juroom ñaar fukki nit mais tubab bi serigne lu yoron jaasi fetal yet ak kurus ñaan waye yalla nak ñom ñu xaar tubaab bi génn ñoo tase ak moom ca poos duma ko duma yoo xam ne kenn la maam Cerno Ibrahima Mbàkke gane àdduna ca Poroxaan ñu ngénte ko Daaru Musi euh, Njaabacounda moo tax tey Daaru Musi bu ñuy màggal jubóot bali fatali keloon dina am ndam loolu mooy indi loolu Serigne Mbaye Taïf li ñuy wax naan ab visionnaire kuy mën a gis lu sori waaye saa su gisee lu rafet la ko yéene famille bépp ndax lii kat mën naa ne su réussiree quatre vingt pour cent mooma moo génne xalaat bi moo génne xaalisam def ci lu jege trois millions ànd koog nun te jublu ci lu may lu baax kon nag bu ñuy sant fokk ñu sant ko ndax famille bu ne war ngaa ñaan am ku mel noonu koo xam ne yàlla da koy wan lu rafet te su ko gisee nokk ne man koo bokk ak i mbokkam ndax lii nu organisé ku ne xam na ne njariñ lu ñuy teew taxul ñu ko organiser niñ ko waxee rek jamono ji dafa toll foo xam ne ñépp dañuy wane la ñu yor ngir bëgg mbooloo mi man cee jariñoo nun famille Longhor nag waaye fokk ñu beral cant waa wilaaya ndax wilaaya taxaw nañ fi taxaw yéen wu rafet gis nga nit ñëwee ci paas bi ñoom ñëpp mobiliser ñëw loolu ànd ak ñu ci liggéey bi fokk ñu beral leen ak cant di leen xam ne lii nag nii ko sëñ bay gise ba wane ko keneen ku gisee lu rafet nii itam boo ko wanee te juboo cee yow danañ ko defee nii ñu ko defee ndax lu baax dong mu ci jublu jubluñ ci leneen kon nag ñi ngi sant ñëpp di masawu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu